madame Bodiat. Où est madame Bodiat Madame Bodiat. Fallou. Fallou Fallou Fatima. ay Fallou. oui Fallou oui. Ana Touré. waaw. Eh? Badou Badou mais Badou waxal gaa yi ci lan moo taal li ko jiitu du mbirum parti bi wala kuréel gi wala mouvement bi waaye c'est le peuple sénégalais qui s'est levé bëri na ñoo xam ne bokkuñu benn kuréel te kenn jiitu leen ci xeex bi may profité di gërëm ñooñu les anonymes nga xam ne mënoo leen seeti kenn ku ne ci këram mënoo leen seeti kenn ku ne ci bërëbu liggéeykaayam bëri na ñoo xam ne ci ay artistes ay animateurs ay dessinateurs façon bu ne te kenn mu see dégg ci yu mel nii ñu jël ci seeni responsabilité ba ñenn ñi sax génn ci ay œuvres artistiques defuñu ko ngir Ousmane Sonko ñu leen di gërëm ñoom ñëpp ci taxawaay bi ñu am ci Sénégal parce que c'est le Sénégal qui est di wax ni nag ñun ñi ñëpp. li xew ci fan yi daf ñoo war a yeewaat ci lu bëri wala delloo ci lu bëri mooy mu mu gën a dëgëral suñu yëg-yëg ci lan mooy suñu wareef ci réew mi parce que it askan wi daf ñoo am dafa wax ak ñun te dañoo war a am dégg-dégg euh, tey kenn ku ne ci ñun amul kenn ci ñun koo xam ne war ngaa fëgg dënn ne sorti victorieux démocratie sénégalaise gagné na waaye individuellement ak collectivement ñu ñëpp ñàkk nañu parce que ay bakkan rot na ci ay nit gaañu nañ ci gaañu yoo xam ne mën na du mën a yàq seen àdduna waaye compliqué ko ndax ku ci ma ku ci ñàkk bët wala nga ñàkk ci loxo wala nga ñàkk ci tànk euh, cër la yoo xam ne am na solo trop ci dundu nit kon quelque part le Sénégal a perdu. gañe na ci lii waaye ñàkk na ci lële moo tax kenn waru cooy génn di bàkku waaye dañu war a renforcer dafa war a renforcer suñu suñu yëg-yëg ci lan mooy suñu responsabilité suñu wareef ci réew mi ku woote nag walla ku ñu ne yaa ngi dem bërëb sàngam boo wootewul sax suñu mbokk journaliste yëpp ñëw caméra yi bari boo dee nit tuuti boo tëddee guddi doo nelaw loolu du ndam de du lu ñuy bàkkoo mais daf la war war a gën a yokk xalaat ci li war a doon sa diggante ak Sénégalais yi parce que Sénégalais yi dañoo ji kóllëre ñun ñi ñëpp may nañ ñu lu ñu lu ñu moo ne lu ñu musul may kenn de waaye lu néew ñu gis ñu may ko nit kon ñun li ñu war a dese ci suñu àdduna mooy suñu bakkan suñu temps suñu alal donte amoon nañu yëg-yëgu balaa lii yëpp di am waaye tey lañ ko war a gën a feddali su ma nee ñun nag waxuma man Ousmane Sonko waxuma Pastef parce que sénégalais yi kenn ku nekk ci ñun lañu ñu kenn ku nekk ci ñun uyu si nañu te jiitu loolu xeex bi ñu doon xeex te niroo ko nag bokk ko parce que li ñu bokkul mooy ñun parti politique lañu. yéen mouvement citoyen ngeen parti politique projet bi gën a rëy mooy nu muy def ba jot ci lenge yi ñuy décider nu réew mi di doxe li mu tënk ci ay xalaat ak ay programme mu appliqué ko mouvement citoyen nag amul boobu ambition loolu rek mooy wute gi waaye amul leneen lu ñuy yëkkati fii te ñu wute ci ci li ñuy xeex ngir réew mi loolu ñuy xeex nag ne am na benn doxalin bu fi am ñu mën ko wax système ci tubaab ñu bëri dañ naan pourquoi ñuy wax système mais système du lu négatif parce que ñun li ñuy woote sax système la système mun nañoo ute système interaction la mooy ay jëflante yoo xam ne ay kuréel ak ay nit dañ koy am seen biir ngir doxal seen doxalin loolu mooy système kon li ñuy proposé suñu ñu nee système bi fi nekk baaxul ñun beneen système la ñu donc terme système ci boppam du moom moo posé problème système dina baax wala dina bon damay faral di wax ni euh, ku gëmoon leneen balaa diine di ñëw danga nekkoon ci benn système de croyance boo demee di dox di dox ba diine ñëw nga ne ah man de diine islam wala diine catholique doy na ma nga dugg ci da ngaa changer système simplement. mais même nit bi la moo tax nit mënoon a nekk ci système système ba baaxul mu dem ba tuub gis ni gis na lu gën ñëw amal njëriñ système boobu kon suñu nee lañ doon wax ak sénégalais yi boobu ba léegi ne leen système bi fi nekk baaxul moo tax ndaw ñi mënuñoo am xëy moo tax ndóol mënu fee jóge moo tax courant bi mënul dox moo tax euh, njëg yi cher na muy lekk bi muy loyer bi muy leneen leneen looloo tax paj mi jafe na sooxe na njàng mi naka naka noonu loolu ñu doon wax sénégalais yi di leen ko wax loolu ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp waaye daan nañu dem yenn saa yi ba commencé ci am xel xel ñaar naan est-ce que sénégalais yi sax bëgg nañu changement am dëgg dëgg dëgg léeg-léeg dañ doon wax ni ci gën a toroxal sénégalais bu élection jotee mooy dem jëli alalu réew mi. di ko jox sénégalais yi ñu ñenn ci sénégalais yi nag du ñëpp toppaat ko sànnilaat ko carte mu toogaat fi 5 di leen toroxal ci loo xam ne peut-être mille 000 francs la leen jox wala 5 000 francs wala 10 000 francs kon demoon nañu ñun ñii di woote beneen beneen beneen modèle ba léeg sax nga xaw a am xel ñaar waaye lii xew dafa wane kon la ñu jëmbatoon sax na meññ na ba tey garab la. loolu wane na wane na ko ci li xew nii parce que ndaw ñi mag ñi jigéen ñi góor ñi ñoom ñëpp dañoo jóg taxaw te taxawuñu lu dul gëm gi ñu gëm liñ leen doon woo ak liñ leen doon yee di leen wax dëgg ci réew mi ak ci niñ ko yore kon loolu dafa war a yokk suñu responsabilité ci réew mi responsabilité boobu nag dafa ànd ak ñu xam ni mënuñoo tasaaroo kenn ku ne beru fi nga ne ba pare ñu yaakaar ni mën nañu am résultat ci dëgg gi ñuy woote bu dee nag ñi ñuy jëflanteel te mu leer ñu ni nekkuñu ci dëgg mu leer ñu ni seen bopp rek lañ fi nekkee ak séddoo mën nañu dóorante mën nañu xasante mën nañu tëjante kaso mën nañu yàkkante lu ne waaye bu séddoo jotee mën nañu fàtte loolu yëpp dajewaat pour séddoo bu dee ñoom ñoo mën loolu ñun ñii nag ne dëgg rek a ñu tax a jóg. réew mi rek kañ tax a jóg soxlawuñu alal soxlawuñu tur soxlawuñu ay fon fond caisse noire lenn rek ñu tax a jóg mooy réew mi na baax ba doomu réew mi kenn ku ne gis boppam ci réew mi ba kenn dootul dee ci géej gi pour dem uti loo xam ne mën na ko am ci réew ba kenn dootul nekk ci réew mi waaye nekk gan ci biir réewam nit mën a jóge ca àll ba ñëw am lu mu amul moom ci réewam ci ni mu gën a yombee yooyu yëpp su dee loolu moo ñu tax a jóg dafa ànd ak nag ñun ñëpp ñu bàyyi distinction parti politique mouvement citoyen ak keneen ak keneen bu desee lu dul dem élection mouvement citoyen ni mën na ne sama yoon newu ci ku nekk na dem élection waaye bu dee xeex ngir ñu delloo réew mi boppam ki ci nekk ci parti politique société civile mouvement citoyen ak ci sax personnalité indépendante dañu war a daje autour de l'essentiel te loolu la askan bi wax parce que keroog bi ñuy génn kenn xamuloon kan moo ci mouvement citoyen yi wala parti politique kan moo ci étudiant wala kan moo ci ouvrier kan moo ci balant wala kan moo ci séeréer dañoo daje ñun ñëpp autour de l'essentiel mooy la vérité kon ñëw biit ni ma ko defee feneen ak feneen lii solo si mooy confiance boobu peuple bi am ci ñun ak message bi euh, bataaxal bi nga xam ne yónnee nañu ko ñu ñu mën koo euh, tekki firi ko te bokk na ci niñ koy tekkee mooy ñu jàppante gën a dëgër ba lu bëri ñu doon xeex te tey mën naa soo daw mënoon na si yeneen calcul wala ñu ne suñu suñu yëngalee ba affaire bi xaw a commencé am tour suñu demee ci gaaya dinañu jox xaalis jox ñu poste suñu toog mm-hmm. courage boobu ngeen am loolu mooy defar am réew loolu jaamu yàlla la parce que jaamu yàlla bu jaam nit ñi jàpp ni rek këpp-këppal la ak yor kurus loolu baax na trop jaamu yàlla la ci lu gën a sell waaye jël sa ndaw jël sa doole ne dama koo jagleel sama askan pour mu baax gëm naa ni jaamu yàlla gënu koo kawe te ci loolu ngeen nekk. depuis le 8 février ba fu ñuy waxee gi yéen ñu ci bëri caabi féete ne leen ginnaaw te dara waralu ko lu mooy ñu am yaakaar rek ci ñoom. mi ngi mel ni comme si ñu romb nit ci mbedd mi am yaakaar ni agresseur te gisoo ko mu yor jaasi gisoo ko mu dara nga jël ko tëj ko ci kaso bi tey mën nañ ci lim ñu bëri ci ñoom waaye dañuy lim ñenn rek pour bañ a juum muy ñu ci mel ni Guy Marius Sagna ku ci mel ni Assane Diouf ku ci mel ni Clédor Sène ak ñeneen ak ñeneen ñoom Abbas Fall waaye aussi également Birame lay Diop ñi nga xamante ni boobu ba léegi ñi ngi ci kaso bi te ñun ñëpp ñu leen ñu bokk àndandoo di leen woowee lu ñuy wax ay otage politique waaye tamit ginnaaw ci exigence boobu ñuy def ñi ngi fàttali ne ñun waa collectif ñoo lànk ñi ngi gën a taxaw tem gën a mobiliser wu à que ñu mën leen a libérer ce qui veut dire libération bu ñuy wax du yem kese ci wax waaye ñi ngi rester mobiliser pour que ñu mën ko jëf bu ñu mën a génn foofu ñu ne parce que foofu du seen kër waruñu faa nekk seen i njab dañoo am ay njaboot te seen i njaboot soxla nañ leen donc loolu aussi bëggoon nañ ko ci leeral mais aussi également ñun waa collectif ñoo lànk ñu am yaakaar ni ñi yor réew mi ñi jiite réew mi dinañ sukkandiku ci événement yii fi xew ci jour yii ñu weesu muy manifestation yi fi amoon peuple bi génn dinañ ci sukkandiku pour mën a nag à partir de d'aujourd'hui à partir de dorénavant ñu nag taxaw temm pour saafara jafe-jafe askan wi